benn jigéen bu ñuy saytu mu ëmb tàmbalee am ay soppeeku ci xel mi ak yaram bi euh, damaa yéex a gis règle léegi ma dem ci pharmacie ba jënd fa benn test bu may wax ndax ëmb naa walla ëmb ma bi ma ko defee gis ni dama ëmb te xaw ma nu ma war a def léegi nag dangaa war a def euh, analyse deret mi mbaa saw mi après daal di woo post de santé fi nga dëkk ñoom ñoo ne expliquer loo war a def. lu tax may dem post de santé. ndax li nga fa fekk benn équipe mooy sage femme gynécologue ak ki la mën a euh, expliquer lépp ci wolof ñoom dina la jox première rendez-vous ak sa carnet de santé. suñu dajewaat dafa am ay këyit yu may indaale walla waaw dangaa war a indi sa carte d'identité bu dee yore nga ko permis de séjour bu dee yore ko ak code fiscal même STP ak résultat euh, analyse deret bi mbaa saw mi bi nga def laboratoire. buñ fa dajee lu fay xew. di nga fa fekk ku la mën a expliquer lépp ci euh, in wolof ndax xam ne dana wax loo war a def ci euh, ëmb bi. analyse échographie visite ak vaccination après. ñoom ñoo lay euh, wax euh, expliquer lépp li nga war a def euh, même après avant accouchement boo accouché ak bi ngay nàmpal. ci xool bi ñuy xool sama yaram dima ci saytu dama cee war a fay wala. déedéet doo fay dara boo mm, doo fay dara doo fay dara même boo yorul sax permis de séjour dans la poste de santé di nga fa fekk ñeneen ñi ne mën la jàppale mooy psychologue assistance sociale ak benn avocat.